warahmatullahi wabarakatuh mbok cinévision tv ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ñi ngi ni and ak jigeen ñi ñu war def ziar rawda comme ni ngeen ko xamé ziar rawdatu rasulillah sallallahu Alaihi wasallam dafa am fo xamni jigeen ñi ñom ñoy dugg am heure bo xamni jigeen ñi ñom ñoy ñew def visite am heure bo xamni jigeen ñi ñom ñoy def visite waye nak pour nga dugg fa il faut da ngay am autorisation kon ñi ngi ni and ak jigeen ñi regroupement pour ñu ñew wara def sen ziar rawdatu rasulillah sallallahu Alaihi wasallam yàlla na yàlla nangu ñu alaykum yaa rabbal amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam alaykum barakatu waaleykum mbokk TV comme ni ngeen ko xamee ñun ñu ngi waaj pour def ko ziar ñi eh, imam Alaaji Fall di membre ci jamoot Ibadu Rahman mu defal ñu benn fàttali ci Médine rek xam naa di nga yëg di kàddu bu baax tuuti wala nga jug taxaw sax su ma nee يلا بدنا الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلlam li nga xam ni mooy mujj gu yonent waaye mën na ni mooy ci jiir yonent yi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent yi yàlla yabalan yëpp dañ ko leen xàllal bi mu ñoom ñëpp ñu toog ci ginnaaw yàlla dogal mi ngi juddoo Màkka yaroo Màkka ba am ñeent fukki yàlla yónni ko wàcc ci moom alquraanu muy téere bi nga xam ni mooy ndey téere yépp ah, mu tàmbali jot woote bi ci ay mbokkam ay mbokkam gàntal ko yëpp di ko xeex xatal ko lool sonal ko guddi sonal ko bëccëg na nañ ko saaga nañ ko xëpp nañ koy xeer denn julli sax ñu taxaw ci doxam denn julli ñu sotte ko sébbiritum gëléem yooyu yëpp dal na ko dem na taayif wuti ndimbal waa taayif def ko lu ne ba mu xëm ba yàlla ne ko sax yow bu la neexee tey ma farwaataay ci àddina bi mu ni allahuma yaxfir xawmi fa innahum laa ya'lamuun yàlla baal leen danoo xamul suñu xaman duñ ma def nii suñu xaman ma maa ngi ci yàlla yónni kon den ma jàpp fukk loxo juróom waaye boo leen faree bëgg ma sama xeet kenn mu soora la mu xalaatan yàlla dogal ko jamono ñëw na waataay ñëpp dugg ci islaam ñëw fekk ko Madina sëf ay gëléem sippil ko ko ay junniy nit ñëpp dugg ci lislaam bi mu dikkee ba mu di ñëw Màkka waa Màkka ni ko doo fi dugg doo fi dugg génn nga demal ndeysaan mu commatu ba benn waay ni ko yow surtout Aboubac ah, Abdou Moutalib doo raf la sama ginnaaw ñëw topp sama ginnaaw ñu dem sama kër képp dal ci yow ma dal ci mu ànd ak moom dugg këram ci at mooma la ko yàlla riñaane ba mu ko riñaane jox ko fukki juróom fukki julli la woon mu koy wàññi ba mu des juróom mu ne ko juróom yooyu nag ku ko julli naa la fay fay juróom fukki julli yàlla dogal mu ñëw ànd julli waa màkk gën a mer di nga xeex di war def ziyaara ba ñi ma àndaloon ci ñeen ci ñoom mu leen gàddaay leen jëm xabash ne am na bu mu fa nekk bu maanu boo xam tooy ñoom ku tooy ci kanam ñoom ñooy ñëw def visite yàlla dogal ñoo ña dem waaye waa màkk continuer di ko sonal guddeeg bëccëg ba yàlla dogal ñu jël décision ci gàttal di ne nan ko rey fekk ban di réunion ñii dañu ni nan ko génne ñii ne bu ah aw aw de dafa leer te ku ko dégg gëm mbooloo nu ñëw fekk nu fi rey nu ñii ne nan ko tëj nan ko tëj foo xam ne du am relation nit ko defee mu noppal nu ah ñu ne ko déedéet ba yaa kenn ñëw ne daal kii daal rey leen ko benn maag mu jóge Najaf benn maag mu jóge Najaf mu ñëw ku yeew ñëw leen kii daal li leen di musal ci moom mooy na ngeen jël bakkanam ñu wax na dëgg ñu ne nan lañ koy defee nag parce que buñ jëlee bakkanam àddina bi dee na ŋaab ñu ni comme xam ci Madina wala Màkka lu mat fukki xeet ak euh, ñeent ñu ngi fi ne kenn ku ne joxe kenn nit bu kenn ku ne joxe kenn nit su ko defee bu ñu ko rayéendoo. waa ay mbokkam lim ñu mën a laaj mooy déye su ko defee déye ji ci ñun muy téeméeri gëléem ku ci ne joxe ñu déye ko ñu jote ko ñu daal di wut fukki fukki ponkal ak ñeent jox leen jaasi salaama ci jamono boobu bu dee léegi mooy mitrailleuse fital gi gën a garaaw dañ leen jox da rayandool kii réndéw leen ki yéen ñëpp kenn xam ko ko rey ñoom ñu ñëw jaasi wër néeg bi nga xam ne fi la fanaan yonent bi salaas la fanaan waaye fekk na ku ànd ak yàlla doo tiit ku ànd ak yàlla doo tiit wallaahi yaasiruka mina naas yàlla noonu naka maa lay ci nit ñi yàlla dogal guddi gi nit di soo rey ko ni ñëw asarke la néegam bi mu bëggee génn yàlla wàcc ci moom yaasiin mu jàng ko ba ca boppam lay suróon wal ci suuf duñ ma gis mu sànni leen ko ñoom ñëpp ñu nelaw yéen bi génn jaar li waa màkk gën a mer di nga xeex di ko sonal ba ma àndaloon ci ñeen ci ñoom mu leen gàddaay leen jëm xabasa ne am na bu fa nekk bu maandu boo xam tooñ du nangu ko tooñ ci kanamam yàlla dogal ñooña dem waaye waa màkk continuer di ko sonal bu dégg ba ba yàlla dogal ñu jël décision ci gàttal ñu ne nan ko rey fekk ban di réunion ñii dañu ni nan ko génne màkka ñii ne ko génnee ah aw aw làmmañam dafa leer te ko dégg gëm ko kon dina wut mbooloo lu ñëw fekk nu fi rey nu ñii ne nan ko tëj nan ko tëj foo xam ne du am relation nit ñi ko defee mu noppal nu ah ñu ne ko déedéet ba yaa kenn ñëw ne daal kii daal rey leen ko benn maag mu jóge Najaf benn maag mu jóge Najaf mu ñëw nekkal ku yeew ñëw leen kii daal li leen ci moom mooy na ngeen jël ba kanam wax na dëgg ñu ne nan lañ koy defee nag parce que bu mu jëlee ba kanam àddina bi dee na dee na ŋaab ñu ni comme xam Madina wala Màkka lu mat fukki xeet ak. ñeent ñu ne kenn ku ne joxe kenn nit bu kenn ku ne joxe kenn nit su ko defee bu ko rayandoo waa ay mbokkam lim ñuy mën a laaj mooy dëye su ko defee dëye ji wayef ci ñun muy téeméeri gëléem ku ci ne joxe fukki gëléem ñu dëyee ko jote ko ñu daal di wut fukki fukki ponkal ak ñeent jox leen jaay si salaama ci jamono boobu bu dee léegi mooy maîtrise fital gi gën a garaaw dañ leen jox da rayee dool kii réew leen ki yéen ñëpp kenn xam ñoom ñu ñëw yore seen jaasi wër néeg bi nga xam ne fi la fanaan yonent bi salaas la fi fanaan waaye fekk na ku ànd ak yàlla doo tiit ku ànd ak doo tiit wallaahi yaasiruka mina naas yàlla noonu naka maa lay musal ci nit ñi yàlla dogal guddi gën a jëla di soo ko rey ko ni ñëw asarke la néegam bi mu bëggee génn yàlla wàcc ci moom yaasin mu jàng ko bëccëg si moom. wol ko ci suuf ma gis mu sànni ñoom ñëpp ñu nelaw yéen bi génn jaar seen biir dajeeg Abubakar fekk Abubakar préparé woon na yoon wi wutal na ñaari gëléem gii moom gi Abubakar ñu ne mën noo kóod ne Mbàkka mën noo nan fexe fu nu jaar ci misaal ba nu waree ba màkkee ba Madina nekkee boor bii ñii leen jëm ngir réeral dem ci benn xunti mën naa am ñu dem fa ba nee màkka bi nee ci xunti ba mu dugg ci biir moom Abubakar Sadiq saxaaba yeneen yi jóge Habasha ñëw gàddaay dem ñëw fii ñeneen ña des màkka di làqatu pour ñu ñëw fii ba am ñetti fan la yonent bi dugg a génn ah am na benn waay bu ne Abu Wayxata moo ko ñëw wan ko yoonu Madina nga xamu bi bu ko wanee teg ko ci mu daal jaar yoonu Madina Omar daal di jóg jaar ko yéebare ni leen Muhammad de ak saxaaba yi gàddaay nañ dem Madina ñoom dañuy dañoo làqatu nag waaw man maa ngi nii làqatu wu ma ku ma topp ma yoonu saagam lay jaar yéen a ngi nii ku ma ñemee rek topp ma ku bëgg ko ku bëgg say say doom nekk gini say soxla nekk ay jëtu na ma topp gars yi kenn topp ba Omar àll yu nekk fa ba nekkaane yi nga xam ne dénkan nañ ko yonent bi te yéefar yi kat ñoo ko mu delloon dénkaane bu ne kenn ku ne ma jox si dénkaane doog a doog a génn ma màkk jëm si Madina yonent bi sallallahu alayhi wa bi amee ñetti fan la génn nag jaar ci yoon wi jëm si Madina fekk Quraysh joxe na ndigal li ku ko andi muy dund wala muy dee dee la jox téeméeri gëléem gaa yëpp daw ku ne di wër ku ne di wër ku ne di wër ku ne di wër ba Soraaxat ibn Maalik nga xam ne moo gën a mën a topp nit di ko topp di ko topp seen yonent bi salaa sallam bi mu toppal ba seen comme kontaan na jàpp ne dina am téeméeri gëléem waaye bi mu jubloo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ni yonent naa ndigal suuf loo ko sant ma def aw fas la waral wu gàtt wu dëgër yonent bi suuf téel ma fas wi fas wi ni bërët mënatu la jóg fas wi mbër bër tànk yi nekk mënul mënul déplacé mu ne lii xam naa nit simple mënu ko ku yàlla yónnul mënu ko yow mi yonent gi ngay wax moom moom nga di ko jéem a nax léegi ni sa waa bu ma ma dellu màkka man ngaa tëdd ma dellu màkka man ngaa tëdd salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk Cinevision TV comme ni ngeen ko gisee ñu ngi nii ci biir jumaa ji dugg fi nga xamante ni mooy rawdatu sayidina muhammad salaa sallam gis ngeen ginnaaw baas bi mooy fi mu ne woon maa bay na bay tiwa min bari rawdun min riyaadil janna gis ngeen min baram baa ngi noonu këram gaa ngi noonu comme ni ngeen ko xamee ak at mu jot ñu ngi leen koy defar reportage ak waa Cinevision TV gis ngeen ko nii fi mooy barabara sayidina muhammad salaa ak ñaari généraux yi gis ngeen moo nekk noonu